information waaye du ñu tere fëlaale comme ni ko xale yi di waxee. Mhm. daal di bàyyeeku tuuti ah, neexal suñu suñu suñu journée ma daal di la nuyu Fama da nga ñëw rek avec la touche musicale. exactement une nouvelle vidéo donc daal di ci defaale entrée Asma maa ngi lay fay nuyu euh, Yacine nuyu euh, Nana ak euh, Pa Assane nuyu nos amis fidèles téléspectateurs amiti mbégte rek àndat ak yéen tey ci lënd bi ci Subatel tout à l'heure ma ñëw ak yéen ci seen rubrique musicale. ci week-end tey nag ci suñu suñu rubrique musicale da nga fas yéene ñëw Euh, ci revue week bi. Ah, oui yëpp lu ci daal di am rek Dakar yëngu woon na. yéen seen am la séntoon démb maa ngi fa woon. <laughs> mbaa kenn dérangé wu la rek. non non kenn dérangé kon benn melokaan yàlla bu la <laughs> bu mu la mës a dérangé. ci noonu nag la ñuy daal di dugg rek ci li nga xamante ni mooy. société ginnaaw bi ñu dalalee femmes ah, ci deuxième partie bi ñu daal di fas yéene waxtaanee li nga xamante ni mooy laban une bonne suite logique de li nga xamante ni moom la fi mujjee woon indi muy muur alors euh, on retrouve Nana tout de suite dans www.mikeystack.com. sama xarit naka moom. maa ngi nii man ak yow tey dañoo béyal kii bi plateau bi. waaw c'est vrai que nag dañoo indi benn touche bu extraordinaire ak suñu taar rek. waaw suñu taar c'est vrai que léegi dafa am mais yaa vu suñu taar le travail ah, de suñu taar moom bay ah. nekk. madame Diatta ah xaritu faama la. oui kooku c'est ma sœur. macha allah xam nga suñu taar la wax. Ah. donc foo jaar taaru. waaw foo jaaree mami je te fais un gros bisou ñu di la jaajëfal jaar nga xoolal defati nga sa mëni ne. yàlla wéral loxo bi mhm. ndaxte loola mata ñaan yéwén na xol bi laabir na te bu la defaree aussi sama doom maa grande sœur préférée uh-huh. waaye nag xoolal balaa ñu may naan fayuma la pour nga wax say mbokk <laughs> Euh, voilà asma comme ni nga ko waxee rek suite logique la ah, ñu jóge ci muur wala dal ci laabaan parce que lépp ci processus su sëy la tey euh, comme ni ma leen di ko fàttaliwee rek chaque lundi dañu waxtaane aada ak cosaan da ngeen di ko laaj tout le temps bëgg delluwaat cosaan bëgg xam seen aada donc chaque lundi dama leen di ko indilaat tey aada ak cosaan nag lu jëm ci laabaan la ñuy waxtaanee lan mooy laabaan euh, nu muy demee processus bi yëpp dinaan ko indi ci kanam dañu seetaan reportage bi delluwaat ci bi laabaan bàjj mooy sang doomam yóbbu doomam mu muur ko yóbbu doomam kër euh, jëkkër ji bu ko yóbboo kër jëkkër ji bu ñu yeewoo it sër bi bàjjen bi mooy yëkkati xale bi ñoo koy jox sër bi pour mu yóbbu ko bu ñu jëlee sër bi ba yóbbu xale bi bàjjen bi day dem wone yaayu xale bi woo ay mbokkam ne ah wone ne ne tey sunu njëkkee siggil nañu parce que doomam tëdd na te ñun ñiy bàjjen yi yëkkati nañu doomam te fekk nañ ko mu fees dell loolu tiitre la ci yaayu xale bu jigéen bi titre la encore fi muy séyee ci biir kër bi buñ ko wanee ba pare en général dañuy jël sër bi yaay ji mooy jël sër bi fóot ka denc ka bu ko fóotee denc ka xale bi mun na ko di ko woddoo loolu la xam ci ñun ci tukuleur loolu la ñu xam xale bi bàjjan bi dafay am yenn saay ku muy àndal mooy doomu ndeyam lay àndal mais bu àndeex doomu ndeyam bàjjen bi tamit moo koy dàmp ba nu mu génnee man sonorité musicale yi déjà rekk neex na ma paasan di ma si fekk si ndax may xool kanam bi mi ngi mhm. kontaan cosaan daal maanaam dafa bax ci ci nit. lii mooy cosaan euh, euh, euh, asma dinaa ñëwaat léegi ci musique bi mais ñu dellu si ci laabaan nu muy demee. keroog maa ngi wax bu ñu la muuree ba sa bàjjan jël la yóbbu la bàjjen bu muulee jébbal sa jëkkër gannaaw laax geeg processus beeg yooyu noonu sa jëkkër da lay jël bu la jëlee nag fekk ci yow dara. bu ko defee bu dee góor gu gore nga dajal kooku dañ lay wax jox lay jox lu tudd njegenaay mun na nekk somu xaalis ça dépend rek moom lu mu estimé sa virginité lu mu ko jaral moom moo ko estimé rek jaral am na ñoo xam ne jaral na leen kër mu jaral leen oto ñii mu jaral leen trois cent mille ñii téléphone ça dépend góor gi bu ko defee sa jëkkër daf la koy jox. jar na lu ne. ah na lu ne. jar na lu ne dëgg la eh, jar na lu ne <laughs> donc. bu ko sa bu la sa jëkkër joxe bu paree day woo sa bàjjen ne ko man de kontaan naa ci sama jabar ki ngi jox kontaan naa ci ki ngeen ma jébbal macha allah fees na dell bu ko defee sa bàjjen moo lay jëli ji bu la jëli jee sër bi nga xam ne moom lañ la muuree woon ba ngay sëyi moom lañ lay sàngaat am na ci aada yoo xam ne nag ñu ci ñu ci bëri ah dañuy jël euh, billet yi nga xam ne sa jëkkër moom lañ la moom la la jox ñu daal la koy tappal ci sër bi ba mu fees dell mm-hmm. daal lay jël yëpp la ci oto yóbbu la sa kër yaay mu la yóbboo sa kër yaay sër boobu noonu dañ koy jël yóbbu ko sa yaay ne ko am ah ñun de say bàjjan kontaan nañu parce que yar nga sa doom ba tey ji téye na boppam macha allah sër bii nii moom la ñoo jëkkëram jox yaay ji moo jël sër bi daal di denc xale bi ñu daal di koy dalal sër ay ñu woo xale xale yi ay xaritam ñëpp xale koñ bi yëpp Macky dañuy woo euh, ki nga xam ne day tëgg xam nga sabar dafa am bayre mm-hmm. léegi bu ñu yeewoo fajar huit heures sept heures du matin rek dégg rëng dëng dëng dëng koñ bi ñëppay ñëw bu ñu ñëwee bu ko defee loolu exemple la pour yeneen xale jigéen yi nga xam ne ñu ngi fa bu ko defee moom mu daal di toog muuru ni ñuy wër ko ku ñëw feccal ko xam nga euh, turus loo sa yaay def nga fi lii patati patata xam nga ne affaire maire ay xaritam ñëw ci saa si ñu organiser fa benn mbaxal añ pour ñeneen ñeneen ñu ñëw exemple lay nekk ci xale bi bu ko defee moom mu toog bu bu ñu sër boobu nag yaay ji lañ koy jox mm-hmm. yaayam buñ ko ko joxee ba pare bu ñëpp demee moom moo koy fóot daal di koy delloo doomam laabaan nag ku ko dégg dafa ànd ak dàmp parce que benn processus la ci ci euh, ci jigéen be ci santé jigéen boo xam ne ne da ngay jàll ci adolescence euh, innocence yaa ngi jëw bi <laughs> mi ngi dee billaay bi ngi xor a démb non avant hier la ma toog na naa li ngay waxtaanee ci plateau bi la ma war a fekk mais eh. <laughs> eh, malheureusement waaw da ko bëggoon daal xam naa ne ku ku mu ñor la daal wax yooyu moom <laughs> ay mbiru laabaan neen day takk jabar donc euh, mu ngi noonu donc comme je disais bu ñu la bu ñu la joxee neexee sa jëkkër ba mu jël la ba nga dellu si bu ñu paree sër bi dañ koy jël jox ko sa yaay sa yaay a koy fóot bu ko fóotee ba pare moom moo la koy joxaat yokku jigéen ki nga xool nga denc sa sër sa te la yëpp la waa am na ñuy wax nag bés bu la bëggee fontu rek nga ne ko fekkee woo ma ma fowee sama bopp comme <laughs> ah, mi mi ngi noonu mais euh, comme ni ma ko doon waxee jéb jébbal jigéen dafa nekk processus bu bu bu metti ci jigéen parce que da ngay jàll ci euh, adolescence innocence jeunesse pour jàll ci femme ak benn maturité benn expérience bi nga xam ne da ko war a acquérir après moo tax dafa ànd ak dàmp en général bàjjen bi bu la mënul dàmp dañ lay boole ak mère yi lay dàmp ñu ci bëri seen maam yi ñoo leen di dàmp ñii seen jaam yi ça dépend ci xeet xeet bu nekk ak ki war a dàmp jébbal aussi dañuy wax ne ni euh, laabaan boo ci génnee da war a di ci mauvaise ay genre yooyu dañ lay faral dangay ngay faral nekk koo xam ne da ngay da euh, ngay neex a dugg da ngay da ngay euh, comment je dirais da ngay accessible ci ñoo ñooñu noonu donc dañ lay faral di wax da ngay làkkatu bu baaxa baax am na ñoo xam ne nag dañ lay da ngay toogaat sa kër yaay ñaari fan mais ñu ci bëri taamuñu ko parce que dañuy ne boo toogaatee mën nga dellu na nga meloon sa jëkkër pour mu jëlaat la dafay metti du coup ci guddi gi bu ñu feetewoo të tëgg def mbaxal yeeg ñoom seen ci nañ lay yebaat ci oto daal la koy jé jébbalaat moom mu àggale la nga xam ne moom moom la commencé woon donc euh, Laban. Euh, <laughs> mais nag man. Euh, eggali la Nana. Nana la mu commencé woon léegi moom wax laaj la ko. mais nag Nana Nana day wax loo xamante ne. man dama ko bëgg sama biir xol. so maa lay déglu attentivement. émotionnellement li may yëg sama xol sax ndax kenn ku ci nekk ak. li nga bëgg man tey bu ma sañoon bu ma say ci sama bëgg-bëgg rek bu ma ci wuyoo bëgg naa ñu delloo ma cosaanu. di tëgg. wëyal ma même si xam nga léegi boo seetloo raar na. bëreetul fa laa bëgg ñëw sa après. ak raar te bëreetul mais léegi maa ngi koy wax Yacine man bëgg naa tey bu ma yàlla mayee boroom kër tey buñ ma ko defalee. ndeysaan dafay nekk lu ma nekk. yàlla na ko. déclaration officielle de kër apprendre Yacine ah on décrète que Fama est un cœur à prendre. et, que un cœur à prendre. et que ki koy takk si na ko na fexe ba ñu laabaat ko. Euh, ñu asma asma asma bi may <laughs> mais euh, juste pour dire li nga wax pour confirmer ko euh, dañ ñu dañ ñu yar ci loolu. donc nous tous les dimanches on est chez ma grand-mère suñu maam di ñu ko fàttali ba tey jii may wax ak yow. ba tey jii nii sama maam du ñu ko fàttali suñu ay yaay. Mm-hmm. ñu jël ay exemple ci suñu ay cousines yi ñu ci jiitu une fois suñu koñ. kenn ñëw taxu si si imam bi jabaram di sëy si ma xëy suba teel dégg ñuy laabaan ci xale bu ndaw mm-hmm. ma dégg woy boobu at liñ ñu ko wax mu gën ma yokk ma ne ah kon tey mm-hmm. boo yàqee sa bopp mm-hmm. tey bu ñu la fi def lii doo am lii te gàcce lay doon donc mooy li ñu ma doon wax dama ci am confirmation juste pour dire que nag na xale yi gën a bàyyi xel ah, ah, euh, nekk na loo xamante ne ndam la fierté la te nag lu mu la mën a jural ci long terme ba ci say ay doom bu la neexee nga ne sama ay doom. nga bàq leen ci ay yëre est-ce que duñu bàyyi nana bu xaw mu continuer ndax bu bu ko defee rek. <laughs> mu mu mu bañ a euh, ko bëgg nag ndeysaan. non bi xam nga ah, dafa ak xol. ak xol